nagi kem tan ya badina yang guko manggiu asurun cahal fuya Quran lagi kem tan ya badina yang guko manggiu asurun cahal fuya ya nenne bas bumujuba kanyi kani terebi sen kerja kawena nennena laaga bansugu mujjuba gaañi wattu dere bi seen karya kaawena qur'aana gi kemtan yabaarina jangu ko mangi yiw ashurun ca harfuya yalla naan la jangal jëm ca asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ñaanal yiw di ñaan yàlla nangul ñu sunu koor defal ñu yiw mbooleem xarakaat yi ak sakanaat yi bi jaahi sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam tey dañoo ñëw fii ci kër Ndiouga ci internat xam-xam ak jikko ànd ak sunu équipe pédagogie mooy al oustaz Mayasin Sow ak al oustaz Alioune Mboup al oustaz Ibrahima Dieng ànd ak sunu mbokk maam Ousmane ànd ak itam sunu mbokk al oustaz Babacar Mbaye ak al oustaz Ismaila Gueye ñu an indi ndongo lii di Moustapha mu war a tari Eh, alquran tari kaamil bi tari bi nag comme niñ koy waxee rek mooy am na ñoo xam ne ni ñu koy defee mooy dañ lay cuq buñ la cuqee nga tari ñu cuq la feneen nga tari ñu cuq la feneen nga tari noonu baax na waaye ñun dafa am nuñ ko taamoo defee mooy dañuy bëgg ci benn bëccëg ci benn jataay nga tàmbalee ca kaw ba ci suuf nga xam ne baati alquran yépp da nga ko tudd ci sa làmmiñ ci bëccëg boobu loolu na ku ko bëgg a def faaw nga xaw a baral sa làmmiñ tuuti waaw ñun ñoo leen may ñu ñu baral seen làmmiñ ngir ngir ñu mën a yeggal ci bëccëg bi waaye buñ ko bëggee def njàng moo xam ne dangay diibal di baaral loolu dafay dafay dafay xaw a yàgg lool waaw loolu moo tax rek ñu di ko defee nii waaye buñ noppee ba yi ci topp incha allahu danañ ko danañ ci ñëwaat buñ yeggalee jataay bi su ko defee sëriñ Moustapha ñi ngi koy ñaanal yàlla defal ko talaaqatul lisaan defal ko charxu sadr yàlla leeral basiiraam ba mu mën a jooxe njàng mi ca anam ba mu gën a yelle ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci barke weeru koor wi ak ci barke leeru alquraan alquraan mi ñu wàccee ci weeru koor su ko defee ñuy nuyu mbokk yi fi teew yépp di nuyu ay woyjuram sëriñ mbayloo di nuyu itam soxna Marema Lo di nuyu sëriñ baaraloo ak Baye Njaga ak ñi nekk ci kër gi yëpp di nuyu waa dëkk bi yëpp sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane almaktum moom itam ñu nuyu ko bu baax a baax di am mbégte bu baax ci teew fi ci teewaay yu mel nii nga xam ne jàpp nañ ni mbindeef teewagu fi teewaay bu gën a tedd teewaay bii ndax teewaayu jataayu alquran la kon nag yal na yàlla defal ñu taysiir barkeeral ñu yépp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën nañoo yemale kàddu yi foofu ba yeggal rek ñu wax ci topp incha allah wassalaamu aleykum wa barakaatu.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

gaañi waddu téere bi seen kër ya kaawe na quraana bi kem tan ya baari na jàngu ko mangi yiw ca harfu ya yàlla naan la jàngal jëm ca kaw say aaya mujj Moy seker sajan najah yalla ja yàlla jam la jàngal jëm ca kaw say aaya yi mu jub mooy sa kër sa kem tan ya barina na ko man yiw ashrun ca harfu ko sarax yàlla ya buur bi moo ko waa leer ga ko arunga bilay du ci bi moo ko kem tan ya barina na ko mangiu asurun yow ya tere bi bawul dara ko ham dara yang membakau sarah ya tere bi bawul lara jang ko kham dara mooy sunu safara nunak nag moom qur'an sara Qur'aan kem tan ya bana jang ko man yiw ashrun ca harfu ya réew yar si ay ndawam ngir ñu ko ndam réew mu ba nga raw day taamu téere bi yar ci ay ndawam ngir ñu ko ndam qur'aan gi kem tan ya bari na jàngu ko ma ngi ashrun ca harfu jàngi Quran quraan bi fonku leen aayam yi wattu leen ëllëg mu rambu leen tey taamu téere bi yar kentang ya barina jang bo mangiu asyurun cahar ya Quran bifangkulen ayam murambulen Quran bifangkulen ayam murambulen Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. fi tew ñi ngi leen di nuyu ci bis bu mag bi di bisu alquran sunu sang bi toog di sëriñ Moustapha Lo doon ci jàngal Qur'an defe naa miinoon nañ ci jataay yi sax mhm. buñ daan ñëw di ànd ak Baye Demba waaye Baye Demba tey dafa am ci programme bu mu dem loolu moo tax teewewul jataayu tey bi comme ngoon gi dafa xaw a gàtt nag dañoo bëggoon a tënk kàddu yi rek balay ndogu di jot su ko defee ñi fi teew jariñu ñi doon wax itam jariñu ñi ngi ànd ak sunu mbokk al oustaz Ismaila Guèye moom itam muy mbokk mu sonn ci daara ji daanaka kaan bu ñu am rek topp na kook ñun sonn ci lool fa tabaarakallah ba noppit am ci yitte yal na ci yàlla fay yiwu baree baree bari ak sunu mbokk al oustaz Babacar Mbaye moom itam fa tabaarakallah yaakaar naa kenn dootu ko présenté kenn ndax képp koo xam ne yaa ngi topp groupe bi ndey daara yi defe naa danga gis ñuy dugal ay ay waxtaanam yu am solo dellu ci wàllu daara ji ànd ak sunu équipe pédagogie bi mooy équipe bi nga xam ne ñoo séq daara ji euh, muy al oustaz Mayacine Sow moom mu yoroon euh, Serigne Moustapha mi ak euh, sunu mbokk Baragay Jong mi nga xam ne moo yore wàllu français bi ak al oustaz Ibrahima Dieng ak al oustaz Ale Mbuub euh, ma bokk kook ñoom def na oustaz Yadd moom moo des ca daara ja waaw ñu bokk ñoom ñuy liggéey liggéey bu rafet boo xam ni defe naa ne bu liggéey bi amul woon ak déggoo buñ dul buñ dul woon yëkkateendoo di tegandoo defe naa ne résultat yu mel nii duñ ko am te ñu ngi yaakaar ne incha allah ci kanam danañ am yeneen résultat yu gën a am solo ndax mbir mi moom nekkul ci xumb-xumb gi waaye mi ngi nekk ci jeexital yi jamono bu nekk résultat yi ngay am kon yal nañ ko muurloo dañuy jox sunu mbokk al oustaz Ismaila Gueye mu indi ci ay kàddu buñ neppee ñu jox oustaz Babacar mbay lu ci manqué ñu mottali ko bàyyi leen ak kàddu gi incha allah bismillah. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi sant yàlla moom mi nga xam ne woo moo wàccee alquran ci weer wu tedd wi di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne moo ne diñ maa yónni pour ma nekk jàngalekat innama bu'istu mualliman mu waxat ne ñi yore daara yi ñoom ñooñu doon ñun yonante yi bu ne ñi yore daara yi nag mooy boroom xam-xam yi ah ñu ngi nuyu bu baax ñi nga xam ne ñoom lañ ci fekk di ay sang di ay kilifa ci bir ak ci biti ñu téru ak sunu sang bi ñu andal mm, téru téru bo xam bu am solo la ngir màggaayu alquran waye ngir sop itam ku jéggaani won alquran di nuyu bu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo ci Cheikh mustafa ba mokal ka ca jiitu di al oustaz Khalifa Mboup ak ñi nga xam ne ñoom la lim sànq euh, yàlla sunu borom xam-xam da koo ñor yàlla sunu borom xam-xam da koo ñor moo tax saar yu njëkk a ki ci xam-xam lay wax iqra bismi rabbik ah jàngal sa turu boroom mi nga xam ne moo bind ndax soo ko jàngul doo ko mën a xam moom yàlla waaye saar boobu ba ca topp ci wàllu wàcc ci ci ci attanazul ci nuzul bi ci wàcc bi ba tey ci xam-xam lay wax mooy sootul xalam alxalam mooy big xalima gi ngay bindee pour xam-xam ñu mën koo téye ndax bu dul woon a xa biga luñ bind xam-xam day raaf ndax nit yàlla da koo bind pour muy fàtte yàlla giñ ci daa ji nga war a sëppe ak ci àllo bi nga war a bind ak xam-xam bi nga war a bindee ne nuun am borom xam ne nuun booba sunu borom daala ci jublu kon yàlla mi ngi giñ ci daa gi nga xam ne mooy mooy taq ci xale ba nga mën a bind. wal qalam mu daal di giñ ci xalima gi nga xam ne ci la daa gi war a taq wa maa yasturuun ak xam-xam ba nga xam ne moom la ñu ci àllo ba yooyu nag ki nga ku ñu formé te jaar la foofu maanaam daaga nekkoon ca xalima ga ba mu bind ab baat baat boobu ñu jël ko rof ko ci yow loolu kum nekk ci yow dootoo dof moo tax maa anta bi ni'mati rabbika majnuun du yont bi danga ko mom moy xéti xam-xam yoyu daaga ci xelima gam tak bam nek ci allo bam nek nekk ci sabab bi nek ay bat yow nek to dof ma anta bi ni'mat rabbika majnun waye kum nekul ci yow noy mel mu mel na sunu boobu dañu ko jàng ci bi sare ba tey day nek halaf day nek mahin da nek aji wax waye fum mu mi nga wax ay tiaxan lay wax. dana dox waaye bu dee dox day rambaaj dana nekku nit ku jaxasoog nit ñi waaye day nga ngandalu yooyu yëpp nag li tax muy nekk ci moom mooy alquran dafa nekkul ci moom yàlla ci biir saar bi itam mu ñuy jàngal ki xam-xam nekkul ci ki nga xam ne ki nga xam ne nekk na ku baax jàng ba pare bàyyi ay njaboot yu jàngul asxaabal janna mi ngi mi ngi koy tudd ci saar bi mooy ñan dafa am ab dëkk am am góor gu fa nekk am ab tool bu ko béyee da koy xaaj ñetti xaaj lenn li ñu ñàkk ñi la koy jox lenn li mu di ko dunde waaye leen da koy garde ngir dimbali ñi nga xam ne ñàkk dab na leen ba mu faatoo nag ba tool ba ñoree mu bàyyi fa ñu sant sekk ak jaw ci ginnaawam ñu ne 4 heures la ñuy xëy pour ba pour watti tool ba waaye bu ñu demee duñ ci jox kenn parce que góor gi daan yàq góor gi moom daan yàq wattu tool bi séddale ka naan dama koy denc di dimbali kooku yàq la ñun duñ def loolu. ci gàttal sunu borom mi ngi ñuy jàngal ne ñoom ba ñu ca fajar ga dem ba àgg ca tool ba ak nam naate woon ca ba ñuy ba ñuy ba ñuy nam naate woon. ca fajar ga àgg nañ ci tool bi te yëguñ ne àgg na jaare la fa ngelalu goo xam ne kas sariim maanaam eh, eh, tool ba ñuul kukk kas sariim maanaam lépp dammatoo dara naatatul léegi la leen ko teg mooy lan mooy dañ leen a formé ci an nuun wal qalam wa ma yasturuun su fekkonte woon na góor ga orienté na leen bañ nangu orientation yi kon ñom dañu xamné ñi ki yaqul parce que li ngay jël di joxé day gëna nat kon sunu borom daf ñuy lo xel pour ñu xamné xam-xam rek moko kajar. jar Sëñ musfa jangal nañu ko dama bet réer mu bëgg gannaaw xel jël alalam gëlëmale ka xalaat may garde kër ga nee ma ñoñ njoñ mooy ñu jël say loxo takk ci ginnaaw di la puus fekk buur bu ñu wax xam-xam gis nga de nee na ma dénk ko ngir mu jubanti ko ndax bu ko jubbantiwul ayam yàq penc mi benn buur rek moo mën a jubbanti bandi bu ñuy wax xam-xam te mooy buur bu ñu euh, euh, ñuy wax réer benn buur moo ko mën a jubbanti mooy buur bu ñuy wax xam-xam waaye buur boobu ñuy wax xam-xam. dafa am ñu koy jàppale ba bu nekkee candidat mu mën a gañe mooy as sabru ah ak dégg ndigal moo tax xadir euh, bam a ah, Moussa ba mu ànd ak xadir pour wuti xam-xam dana ko danaa muñ incha allah te loo loo ma joxoñ danaa ko def danga ci ciy ne itam kii yabal dongam pour mu jàngi day muñ te déggal ka nga xam ne moo ko amee ca daara ja Eh, benn mag dafay wax ne alquran dafa nekk gaynde goo xam ne ñetti gaynde ñoo koy songu nee na way jur wi jël doomam yóbbu ca daara ja day nekk gaynde kañ jox donga bi day nekk gaynde waaye dong bi itam day nekk gaynde luñ ko jox mu mokkal ko ngir mu nekk lan mu nekk sang ah, ngir mu nekk sang eh, kon lu ñu am nañ ko def ci daara ah taalifkat ba nee na euh, daa euh, daaraa ma jàngal te daaraa tax ma doon fi dara ah ma jàngal te daaraa tax ma doon fi dara daa daaraay ki tax euh, xam nu ko xabasal ay daraa kon kon kon fonk leen daara ah da ma jàngal te daaraa tax ma doon fi dara daaraam marangal ay dara kon fonk leen daara mais daara moo tax ma doon fi dara man waaye daara itam moo tax ma dem ba mu yàgg ay bunti xéewal ubbeeku ba lu ma sol daraa lay doon mu ne daara te moo tax ma doon fi dara kon penc ku fi doon dara daa daaraa tax ndax Serigne Cheikh ca ja ca jàngalam ya ca jàngaleem yu am solo ya boo juddoo daara moo lay gatandu ah ndax moo lay jox tur boo faatoo moo lay gunge koo xam ne moo lay gàttandu te moo lay gunge bu dugal la biir bàmmeel ba buñ lay bu ñuy mujj dina ana imaam joxeel ñaan wala tëjal ana imaam bi na joxe ñaan wala mu tëj rek na jullee wala mu joxe ñaan gi wala mu tëj rek ñaan gi kon daara jooju nga xam ne moom moo ñu gàttandu moom moo ñu gunge nañ ko fonk waa kër Ndiouga nag euh, ñu fonk daara lañ ndax xamuñ ñëpp waaye am na ñu fi xam waaye ay ñenit ci ay dëkk boo leen xamee da ngay xam ne la ca ëpp ca dëkk ba noonu lañ mel wa ma sawada al aqtaaru illa rijaluha wa illa fala fadli turbi ala turbi bu ñu waxee dëkk bële moo gën dëkk bële du suuf sa ña fa dëkk moom moo tax xam nañ fi ay sang ñu mel abul abbas ahmed tijaani ak ak ak ak ay magam ak ay sang ñu xam leen fi ci daa rek moom moo ñu xam leen yal na yàlla sàmm sunu sang bi tey tari alquran mooy Cheikh Mustafa. gis nga sunu borom borom ci tu yusuf yàlla nee na bari na ay kéemaan yu nekk ci kaw suuf ngeen di ko romb am yu nekk ci kaw asamaan ngeen di janak moom mu di leen di romb te du ngeen bàyyi xel ne la waaye lay xamal ne lii la yow mag mi jéem a mokkal jéema la mokkal sa bu fekkee bu fekkonte woon ne saar bi nga xam ne ñaar fukki aaya la jéem ko mokkal ci fekk semaine doo ko man waaye ki nga xam ne tari na ko nag mokkal na ko ba tari ko ci sa kanam ci ñaari waxtu ak genn wàll ah kon yal na yàlla sàmm ñu te aar ñu te sàmmal ñu daara ñu ngi ndokkeel bu baax soxna soxna Mariam di yaay ji Euh, di sunu sët moom kii sunu sëtaat la ah ndax lu tax soxna Kiné ah moog yaayu soxna Marème ñoo bokk ndey ak baay ok ah ok yaayam nga nële maam jaa nga nële te soxna Kiné moom sunu soxna la ndax xaddam géey sunu doomu bay ah kon loolu moom moo tax ñu waxee noonu kon yal na yàlla sàmm te aar ko te yaatal dënnam. ndax yàlla dafa fonk xam-xam ba nee na nee na ñi ma xam mooy ñi xam ñi ma ragal mooy ñi xam xoolal ragal yàlla ni mu toll du jaagi na ragal yàlla lu tuuti la dangay gis koo xam ne am na gaat bu ne mais li ko sànq mooy ragal yàlla xool Firawna li ko sànq mooy xamul yàlla ragalu ko xool Xaaruna lu ne am na ko mais yàlla tegu ca bët mais ki nga xam ne wàllu àdduna amu ci dara te xas ya boobu nekk ci sa xol yàlla neena na ña ma ca jiital. ñi ma xam dëgg-dëgg mooy ñi ragal mooy ñi am xam-xam innama yaxsha allaha min innama yaxsha allaha min ibadihi al ulamaau yàlla ne ñi ma bàyyi xel moo ñi jàng ba xam ah waaw kon yal na yàlla sàmm ko te aar ko ki xas tari alquran lu ñu def ci moom maanaam mi ngi mel ne ab ay saako yuñ dajale teg fii ba pare maanaam nit ki yuuram ay xalaaya yi nekk ci yuur gi bu ci nekk dafa am ay tur fii xam-xam moo fay nekk fii ay tur nit mu nekk noonu mais su yi war def xam-xam mbuus yi war def xam ci yuru nit day am lu koy yokk am lu koy wàññi moo tax ñu naan naan naan lem ah del del lekk del del yooyu lu tax parce que cellule yooyu nekk ci yuur doomu aadama yooyu da koy yokk mais ba ci ëpp doole ah tey mooy ci jën bu bare ak naan bu bari ah Serigne Cheikh nee na médecin yi dañ ne naan dafa baax nee na te te Sidi Xayma bind ne naan bu bari baaxul nee na may may xool lu tax loolu nee na ndekete ki ñuy tere naan bu bari mooy ki ki toll ci jàng parce que naan bu bari moo ko indi lekk gu bari lekk gu bari moo ko indi nelaw gu bari te nelaw gu bari na xel xelam mais su fekkente ne ki nga xam ne moom nekkul ci wàllu daara ci santeem kese rek la bëgg a def kon na de na na na na dend ak félicitaire bi wala barigo bi comme ni ka njami ak fekkeen di naan rek yal na yàlla sàmm ñu te aar ñu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yi ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi ñu nekk di ñaan yàlla yal na yàlla nangu suñu koor di ñaan yàlla mu jéggal ñu suñuy bàkkaar eh, bu ko defee rek di nu ñi fi teew ñëpp di sant yàlla mi nga xam ni moo ñu fekkeloo jotaayu alquran bu am solo bii ndax yi tamit am na jotaayu yiw yoo xam ni fekke ko sens la eh, yombul ndax am na koo xam ne bëggoon naa fekke jotaay yu mel nii te mënu mënu ko kon nag ku ko fekkee danga nga war sant yàlla ndax yi tamit eh, fu ñu jànge alquran fatiha ba nga ñaan fa yàlla mën nay nangu ñaan ga ci lu ci lu gaaw te nag sëriñ Moustapha Lo jàng na fi fatiha banaasi muy téeméeri saar ak fukk ak ñeent ci benn jotaay kon loolu doy na sant yàlla ñu teew fi rek ci turu Oustaz Mouhamed Diaga ñuy waa ASWAMEG muy association bu yëngutu ci daaray alquraan yi di jàppalante ak ñoom eh, bu ko defee xëy na dañuy joxe kàddu yooyu rek mu dellu ci comme niñ ko faral di defee Eh, jotaay bii paase muy bërki démb rek bokk nañu teew fële ca ndaam ak eh, suñu benn ndongo bu ñuy wax nu tuddati eh, waa Serigne Lo moom itam nii la taree alquran wax dëgg benn jotaay Fatiha ba ba loolu nag yombul waaw yombul kon tey buñ ko defee fii ci kër Njuga te jëkkoon nañ ko fee def yaakaar naa Pape Makhtar moom itam nii la taree woon fii kon ñoom am nañu ñaari kaang kon bu ñu bàyyiwul rek incha allah kaang dañ dina gën a bare te yal na yàlla defal leen ko. Eh, di sant yi tamit ay way juróom ginnaaw bi ñu ko ñaanalee moom yal na yàlla màggal ko yal na yàlla def ko mag mu am ñam alxuraan ji yal na ko muurloo yi ci war a topp yëpp ci ay xéewal yal na yàlla toftal ko ci di ko ñaanal ay waajuram yal na yàlla sàmm leen yal yàlla aar leen ba ñu taxawu ko bala ñu soxla ci moom lépp yàlla jàppandal ko yomb na yàlla mën na ko yal na ko yàlla def waaye di sant yi tamit ñi ko yore woon mooy oustaz Khalifa ak uh, oustaz yi mu ko seqal ñoom ma yaasi ñoom ñëpp yal yàlla taxawu leen defal leen tawfiix goo xam ne si lépp a ngi ci. ba tax ba ñu mën a yore daara ja nu gën eh, maanaam nu raw seen jort bu ko defee loolu la ñuy lañ leen di ñaanal yal yàlla nangu ah di nuyu oustaz Ismaïla Guèye di ko jaajëfal ci kàddu yi moom itam macha allah eh, li mu wax lu am solo la te mooy xam-xam te bu ñu nee xam-xam mën nañ nit départ bi mooy alquranul karim waaw alquranul karim mooy bunt bi bunt bi nag boo ko jéggee danga nga bare ay jafeñ-jafeñ doog a àgg fa nga jëm waaye boo jaaree ci bunt dina yomb pour fa nga jëm nga àgg fa waaw ndax dañuy wax ni yoon bu jeexul waaxusil xaw ma du jeex waaye ku wàcc ku wàcc yoon nag pour nga àgg fa nga jëm du yomb moo ñu ni mëna a ba waaxu baax fana xam fa ngay fanani moko moko gën waaw ndax bo mëne waxu rek di dem te xamoo fa nga jëm koku man nga sonn lool waaw waye bu fekke teggu nga ci yoon xam fi nga jëm ah bu boba lo yéex yéex da nga àgg inshallah allah lepp nak yitte itam yitte ndax Serigne Cheikh waxon nako radiyallahu anhu yitte waaw yitte ñaan ak yitte ñaan ak yitte waaw ñaan ak yitte moo tax xam-xam boobu nga xam ne alquran mooy buntu bi benn waaye dafa wax ni law kaana nuurul ilmi yudraku bil muna maa kaana yabqi fil bariyati jaahilu nee na bu doon bëgg xam-xam rek nee na la nit di def am leeru xam-xam nee na kon doo gis kenn ku réer ci kaw suuf ndax ñëpp bëgg nañu xam waaye nag ñi ngi rawantee ci yitte yi ndax kat sëriñ Moustapha mii bu fekkoon ni ay way juróom dañ ko bàyyi rek ci kër gi muy taxawaalu yaakaar naa pour mu tari alxuraan du yomb déedéet du yomb de waaye buñ ko yëkkati woon bañ ko yëkkatee jox ko ñoom ustaas yi tamit ñoom itam ñu koy seetaan guddeeg bëccëg di ko dundal rek muy lekk ka naan tari alxuraanam du yomb waaye déedéet defuñu loolu dañoo yàq seeni nelaw nelaw yi bëccëg nelaw yi guddi yëpp ñu yàq ko ngir lan na tari alxuraan kon fokk yitte am kooku kon fok yitte am xam-xam boobu ci alquran la départ Ismaila wax na ko léegi innama yaxsha allah min ibadihi al ulama yàlla wax ba tey ne hal yastawi la sina yaalamuun wala sina laa yaalamuun yàlla nee na ñi nga xam ak ñi xamul yamuñu wax dëgg ki xam ak ki xamul moom yamuñu waaw yamuñu mukk waaw moo tax ñu xel bu ñu ne inkaar yi la du istifham dégg ko istifham inkaar yi waaw bu ko defee eh, kon xale yi way jur yi maanaam loolu lañu ñu war a ànd maanaam way jur yi noonu lañu ñu war a jëlee xale yi taxawu leen yóbbu leen ci jàngukaay yi ñu jàng même buñ dul mën a tari alquran bi kaamil bi yëpp mais lu ñu jàng ba tey baax na fu ñu yem baax na ndax kat mokkal alquran moom jagle-jagle la waaw mokkal alquran du ñëpp ko man waaye du ñëpp ko am itam waaye li bon rek mooy bañ jël xale bañ ko maanaam seetaan ko bañ ko jàngaloo waaye bàyyi ko muy taxawaalu parce que itamit responsabilité la bu rëy boo xam ne ëllëg wayjur wu nekk da nga ko lay sa kanamu borom ndax sa njaboot gi jàngaloon nga leen diine ndax yaroon nga leen léegi nag am na yoon yu yomb te mooy yóbbu ko ci daara ja ñu yaral la ko jàngalal la ko bu ko defee buñ ko delloo see ci yow rek nga sant yàlla bu baax ndax teg nañ ko ci yoon woo xam ne bu ko wàccul rek njub fekk ko ci kon nag ah macha allah jotaay bi yal yàlla barkel ko lépp luñ fi ñaan lu dul dog mbokk mbaa muy bàkkaar yal yàlla faj ko ñi tawat yal yàlla saafara leen yal yàlla saafara tiis yeeg jaaxle jaaxle yeeg yëpp réew mii ñi am président bu bees yal yàlla def ci tawféex ba yàlla ubbi seeni xel ba gindi leen ba ñu teg réew mi ci njub teg ko ci dëgg waaye doxal dëgg ba kenn ku ci nekk gis ci sa bopp ci njëriñ yal yàlla def ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ah kàddu yi fi jib de am na solo lool ñu ngi jaajëfal bu baax sunu mbokk al oustaz Ismaila Guèye moom sama doomu ndey la ci côté di sama jarbaat. di sama jarbaat ci beneen côté ba noppi wëlbër di sama oustaz macha allah al oustaz Babacar mbay moom sama kal la sama oustaz la léegi damay wax sax man jàngatuma fiq fiq moom parce que damaa am ñaari téere yoo xam ne ñooy samay téere fiq benn téere bi mooy oustaz Babacar Mbaye léeg-léeg buñ ma laajee masala bu ma ko taayee wër ma yónnee ko message ne ko oustaz lijjantil ma masala mi ak al oustaz Moustapha Sarr ca Thiès ñoom ñaar ñooy sama ñaari sama ñaari téere ci fiqhu waaw ah. ko defee ñu ngi am mbégte bu baax a baax ci jataayu tey bi ndax jataay bu mel nii yaakaar naa ku bëgg yàlla bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa danga ci am mbégte eh, mel na ni oustaz eh, Serigne Moustapha mi ak Pape Makhtar ñoo ñëwandoo ca daara ja pour wan la ni yàlla di doxalee te niñ leen doon jàngale nenn la dëgg la sëriñ Moustapha dégg naa ko muy wax ni booy sàmm jur wenn yat rek doy na pour sàmm jur gu bari waaye booy sàmm nit nit ku nekk ak yatam ah, nit ku nekk ak yatam bu dee nit nit ku nekk ak yatam waaye ñoo ñëw ca daara ja e, di toogandoo ci benn chaise avant ñuy commencé jàngale bi ñëw ubbi daara ji rek te commencé guñ jàngale seen papa indi leen ñu teel a ñëw ñu toogandoo ci chaise bi nii ñoom ñaar léegi naa fi mu toll fi mu toll yaakaar bu ngeen bëggee toogandoo ci chaise dana xat waaw ñuy toogandoo ci di di wiccax seen tànk yi noonu <laughs> ngeen am wax kee joxoñ Pape daan kee moom bis bu mokkalee kaang mu sob lay doon <laughs> noonu la ko wax waxee ndeysaan bu ñuy tari ak ni muy nu mu waaye boo xoolee defe naa Pape Matar daaw jég tari defe naa ñaari at ci ren Moustapha di door a tari gis nga ni yàlla di defe te ñoo ñoo fa duggandoo te ñoo bokk nuñ leen ko doon joxe bu amee lu ci wuute rek mooy mooy ab saaku moom booy duy saaku bu nekk lim mën a def nga ciy def waaw saaku bu nekk da seet lam mën a def nga def ko ca waaye ba tey rek bu doon dañ ne ah moom day mënta mokkal ndax Moustapha la fa Pape Makhtar la fa demandool boo Pape Makhtar mokkal na ba tari bu yàgg kon moom mënta kon du mokkal parce que ku nekk ak temps bi la yàlla may pour nga mën a mokkal ndax demb ma ngi wax ci ci ndaamu keur gi mané alquran mi ngi wacc ci yonent bi sallallahu Alaihi Wasallam ci diru ñaar fukki at ak ñett ma zaala yati lahu jibrilu adda yaji ci diru ñaar fukki at ak ñett la yalla wàccee alquran ci yonent bi ba alquran jeex tak téméri sar ak fukk ak ñent la ka jitu sax ma ngay wax ne ما غاي قد آه، خذ عدما نزل الروح الامين على رسل الاله كي اجزى بنظمهم آه. ني دفنا نون لا واخي واو آه. ني ني لادريس عيسى هذا يا عددا وللحبيب كد الفا فلا تهمي لك جيتو دا واخ يبن لادم يبن لادم نون ثم تا فلنوح ثم لموسى ثم موسى لإبراهيم عد بمي دال لإدريس عيسى حازيا عددا وللحبيب كدن ألفا فلا تهمي نانون لا ما وخاتكو am naa gars yi eggaguñ foofu ci xilaas moo tax nekkoon eggaleel nañ ma ko bu yàgg yabun li aadama nuunun summa taa fali nuuxin summa muusa li ibrahima addu ba mi daalun li idrisa isa xaaza yaa adadan walil xabibi kadun alfan fala tahimi ma zaala yaati lahu jibrilu adda yaji nee na nee na jibril am malaaka la nee na fukki yoon ak ñaar la wàcc ci yonente yàlla aadama yàlla yónni na ko fukki yoon ak ñaar ci yonente yàlla aadama mu ñëw wax ko ndigalu yàlla mooy yebun li aadama yonent yàlla nuux alayhi salaam yàlla yónni na jibril ci moom juróom fukki yoon mu ñëw di ko indil ndigalu yàlla yonent yàlla ibrahim yonent yàlla muusa ñeenti téeméeri yoon nuunun summa taa fali nuuxin summa muusa yonent yàlla muusa ñeenti téeméeri yoon la yàlla yónni jibril ci moom yonent yàlla ibrahim na moom addu bami ñen fukki yoon ak ñaar la jibril wàcce ci yonent yàlla ibrahim yonent yàlla idris ñeenti yoon la jibril la yàlla yónni jibril ci moom yonent yàlla isa fukki yoon la jibril wàcc ci moom ah daalun li idrisa isa xaasa yaa adadan yonent yàlla muhammad nag walil habibi kadun alfan fala tahimi bu dee yonent yàlla muhammad cent vingt quatre mille fois la jibril wàcc ci moom téeméeri junni yoon ak ak ñaar fukki junni yoon ak ñent junni yoon la jibril wacc ci mom ci diiru ñaar fukki at ak ñatt di ko indil alquran kon ci diiru ñaar fukki at ak ñatt la yonent bi recevoir alquran ba alquran jeex tak yalla ne sa mission matna ah legi nak yalla di di di defal tawfik njabot gi ngay mokal ci juroom benn at di mokal ci at am ñuy mokal ci ñaari at loolu moo tax toujours damay faral di wax ni li wolof yi wax ne njëmbatum golo njëmbatum golo boo ko jàngee rek doo dem golo mooy def bu sampee toog tuut buddiwaat di xool ba xam am nay reenam ndéet di xool ba xam ñaata reen la am waaw bu sampee tuut buddiwaat samp tuut buddiwaat waaw loolu nag taxul taxul mu baax lool waaw taxul mu baax lool wala nga dugal ko ci daara ji génne ko yóbbu ko ci jeneen daara génne war ko yóbbu ko ci jeneen daara day mujj mhm. day jaxasoo parce que euh, toj yi ni bopp janax yi du benn mhm. waaw toj yi yi du benn waaw man ni may def ak ni oustaz Mayacine di def du benn bokkul ni may def ak ni oustaz Ibrahima di def du benn fokk am ci foo xam ne dañuy wuute nu ñuy defee ndax ni nga jàppe ne noonu lay baaxee rek noonu ngay def ni nga jàpp ne non nga gëna mané itam noonu ngay defé kon nak yalla yalla barkel way kato arab ba nak dafa wax ne al ilmu awwaluhu murrun madaqatuhu lakinna axirahu ahla min al asali waaw dafa wax ne xam-xam njalbeen nga dafa wex xat jàng neexul di jàng neexul njalbeen nga dafa wex dafa wex xat moo xam dafa xat ci xiif ngir xiif ndax bu dee ci sa kër yaay moom wala sa kër baay saa yoo bëggee tàngal ne da ñaan cent dem jëndi tàngal mhm. dangay ngay lekk da ngay di lekkantu ba doo añ doo reer mais bu dee daara loola amu fa waaw bànneexu kuccitaatu boobu dañ la koy xañ ci daara waaye dana la jural lu am solo ci sa ëllëg ci ku bàyyi xel. gis nga xale boo ko bëggee rey xam nga suul dañ ne arab yi dañ daan dañ daan suul seen doom yu jigéen yi wa dul banaati am doom ju jigéen suul ko moom la sunu borom di wax wa idal mawuudatu suilat bi ayi danbin qutilat waaw Serigne Cheikh nee na liir boobu ñu suul ëllëg yowmal qiyaam danaa ko lew sunu borom neen danaa ko taaw ci sama loxo yu tedd yi ne ko ne ko liir bi loo def ba ñu suul la bi ayi danbin qutilat yow lan mooy sa bàkkaar bañ suul la mais wa'dul banaat boobu ñi ngi koy def léegi ci yeneen anam ndax bu njëkk ba danga daan gas pax ba mu xóot leewu ba mu jekk leem ci biir pax mi mu di la xool léeg sax muy muy muuñ ndax xale la xamul dara nga suul ko dem sa yoon waykat ba sax ma ngi koy way jur doom e, sànni ci mbali sa yaram dawul waaw mbaa nga rey mu dee sa yaram dawul waaye léegi neneen lañuy suule ni ñuy suule mooy Top sa ciofel ci dom ji ba do ko janglo su deme dar ja day tumuranke su deme day wet gisul ken ki daf matak tak mom daf mamin min ah yow ndax man la tak ba moko alquran wala mu tak la ba xam nu ñuy jullee yow ban jariñ mo nek ci tak la lum la gëna tak di gëna yafus te góor wurtu yafus xale lum gëna tak ndayam di gëna yafus lu mu ko gën a taq rek di gën a yaafus kon teq day tool foo xam ne teqale ga farata lay doon xanaa xamoo suñ mag ñi daan nañ def lu am solo li ñu tudde lël lël xam nga léegi la ñuy def rek léegi moom yëpp dafa soppeeku ku am sa doom rek boo koy dugal néeg góor dangay xëy rek eh, dem fii lu ko ñu ñu ñu làkkal ko nga daal di indiwaat mais bu njëkk ba lël moo daan teqale xale bu góor ak ndeyam. Hmm. lël moo daan teqale xale bu góor ak ndeyam ñu dajale xale yu góor yi nekk ci dëkk bi yëpp te maase yóbbu leen ci néegu góor ñu jongal leen ñoom ñëpp wut bootal bu leen di yor wut selbe bu leen di toggal bootal bu jigéen bu leen di toggal ak bootal bu góor boo xam ne moo leen di yor comme ni ustaas di yore xale yi ci daara ji selbe yi nag mooy mooy ñu mag ñi nga xam ne ñoom jot nañoo jaar ci lël selbe yi di leen kasagal guddi gu jot di leen kasagal ay demoon naa cuuruur teenu baay buur njaay nag ya bari nuroo sàmm sa mën a ràññee te di leen ko firiloo nag ñu koy firi nga xam ne buñ ca jógee ca lël ba dañuy dañuy xam seen cosaan waaye tamit day am yar bu def ci ñoom dañuy buñ ca jógee dañuy doon ay militaire dañuy doon ay nit ñoo xam ne jafe-jafe àdduna du leen saf moo tax daan nañ kasak sax naan xaw ma nuñ koy waxee ti naan euh, seen yaay génnee na leen ak seeni baay su ngeen génnee mbaar bu leen dem ndakaaru booba booba yàqute mi ngi ci dem ndakaaru booba yàq waaye léegi dem ndakaaru yàqute nekkul foofu waaye liñ bëgg a wax mooy léegi yow yow yaa war a res sa bopp waratoo wéer sa bopp ci sa yaay waratoo wéer sa bopp ci sa baay mm-hmm. moo tax boo jógee ca lël ba dootoo fanaanook sa yaay léegi nag da ngay ba pare sa ay mooy continuer di la yor di fanaan ak yow moo tax léegi góor ñëpp nekk ay yambar mais bu njëkk ba duñ yare noonu daaw ñu yare noonu boo jugee ci néegu góor dootoo dootoo dootoo da ngay am bañ sax comme sa yaay di la sang déedéet déedéet léegi yow yow yow yow léegi yow kenn ci société bi koo xam ne doo ku ñuy jàpp ci loxo am di la wax fu muy fu muy jëm la la chanfara waxoon wala bi jubba in ak ha muribbin ah, muribbin bi lan bi arsihi ah لجي يطالعها في شأنه كيف يفعل واو كوكو موي كيغا خا نبو ديمي با ماغ تيا بو امي بو امي سخنا كوم تاكو غام دون تاكو يايا لغي نون لاي تاكو سخنا سا نون لاي ملك موم يطالعها في شأنه كيف يفعل لومي بغا ديف لاج سخنا سا نومي ديف بو سخنا سي اندي مو ديف كو بو سخنا سي اندول مو ديف كو آه، لي جيب نا غور بن جابري نيوم نيوكاي ديف نيوم غاي ني آه. ñoom ñooy def loolu waaye bu njëkk ba yar boobu yar boobu dafa amoon solo mais yar boobu daara daf ko dafa waabale yar boobu nga xam ne ñàkkoon nañ ko ci suñu société bi yëpp léegi daara dafa dafa indi yar boobu ngay ngay ngay ngay oustaz Babacar mbay mi bar demb ba démb la indi doomam ca daara ja te moom daara la yor am na ay doomam yu yu jàngal bañ bañ tari alquran di jàngal yeneen doomi jàmbur bañ tari alquran mais xanaa kay yomboon na trop kay doomam toog ci daaraam jànge fa mais barki démb la ko yóbbu ca daara ja mais parce que jàngalekat la xam ne li muy def lan la oustaz mi soxnaam day jàngale soxnaam kaangu alquran la soxnaam sama doomu ndey la sama doomu baay ndax suñu boo ko bàyyi kaangu alquran la tari na alquran comme nii ko Moustapha mi taree kooku kay mën naa jàngale alquran mais doomam ma nga ca daara ja pourtant mënoon faa bàyyi na man jàngalekat la sama soxna jàngalekat la kon léegi. mais am na am na loo xam ne kenn mënu koo amee sa kër ndaay ak sa kër baay am na loo xam ne kenn mënu koo amee sa kër ndaay ak sa kër baay ci daara rek lañ ko mën a amee moo tax yar bu am solo boobu mag ñi doon def di ko jaarale ci lël moo tax xanaa xamoo kasak man damay wax ne dañ ko waroon a tuubal rek kasak buñ ko tuubaloon rek culture bu am solo la. dañ ko waroon a tuubal rek yi nga xam ne ay wax wax yu yu yu ñàkk teggin la ñu dindi ko rek yaa ca des ñu bàyyi ko fa waaye ndax kasak kasak ci boppam dafa am galanu boppam tëggum kasak ak tëggum sabar du benn dafa am galan boo xam boo ko déggee xam ne loolu kasak la comme ni nga xamee ne ca mag ña am na galan boo xam ne boo ko déggee xam ne am na ku jaan mat boo déggee galan ba fu sori ñu tëgg ko nga ne dëkk sangam jàmm xew fa wala nangam galan boobu tàgge la am na galan bu ñuy tëgg ñu ne weeru koor waa feeñ ndax booba audio yu xonq yi amul léegi la gaa yi wax na man audio bu xonq du ci woor te daan nañu woor ci galan tëgg ndënd weeroo feeñ ñu tëgg ndënd Seydil Hadji Malick nee na daan nañ woor ci taal sebbu te loolu mooy waa Kër Suley gis weer wa ñu téléphone booba téléphone amul mënoo téléphone a kër njuga da ngay génn ba ca ganaaw dëkk ba nga matt mu bari taal bu séemu bi tàkkee waa kër njuga seen kër ah kër su lay gis nañ weer wa nañ ko taalal waa kër daam waa kër daam taalal ko waa kër Mamour Gueye waa kër Mamour Gueye taalal ko waa Njaxate Njaxate taalal ko waa Ndogal Ndogal taalal ko waa Sàkkal léegi nag lu gaa wax man de audio yu xonq yi mon du ma ci woor sébb sébb wuy xonq taal bu tàkk di xonq ku ci mën a woor kay te loolu di charia naka nga naan sébb bu bu sébb ab ab bu xonq audio kay day xonq audio kay xonqaay bi wax message bi ci nekk dëggu rek loolu moo am solo loolu moo am solo ñun suñ société moo jaxasoo fi mu toll nii ndax yu bari ci valeur yi nga xam ne mag ñi xam bàyyi woon nañ ko fi valeur yooyu moom lañ dem ba ñàkk valeur yooyu moom lañ dem ba ñàkk wa de kon yàlla ñu yàlla dimbali rek te yàlla suturaal ñu ñu xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu doon dund nii jàpp naa ne du du du nekk lu dul ab jàngalekat ak lu mu mën a def jàngale mooy ëpp solo ca mooy la ëpp solo ca la muy def kon nag message bi defe naa jarul muy jarul muy gudd lool am na loo xam ne boo ko waxee daanaka wax wax naa ko ay yooni yoon man sama yéene mooy man damaa jàpp ne way juru way juru way juru xale bi gënumaa bëgg ndam ci xale bi man damaa jàpp ne way juru xale bi gënumaa bëgg ndam ci xale bi ndax buñ ne diw tarina alquran mokkal na tarina fu mu doon jànge ñu ne ci internat xam-xam ak jikko la doon la doon jànge te man ma xam ne internat booba man ab membre laa fa dara laa fa man loolu dama fay am dama dama ciy sagu dama ci am ndam waa ndam loolu da ngeen a jàpp ne woy jur wi moom moo ci gën a moom moo ci gën gis boppam ci doomam ju tari ji dëgg la doom ju tari moom neex na ci xol ku sañoon sa doom day tari waaye boo noonu nga xamee ne boo sañoon sa doom tari nu ko raw la jàngalekat bi ne bu sañoon xale bi tari moo tax man damay wax ne alquran ji bu ma ko mënoon a laax wala ma fonde ko jox ko xale yi ñu naan ko nekki kàng da noonu laa koy def noonu laa koy def parce que loolu sama sagu àdduna ak sama sagu àllaaxira moo ci nekk maa ngi nuyu soxna Sagar fu ma ko gisee rek sama xel dem ci Moustapha ki rakkam léegi nag mokkal na jawharatul kamal macha allah nee na bu ñu daan jàng jawharatul kamal ba ci allahuma salli wa sallim ala talaati alxaq bil xaqi alkanzi al azam ifaadatika minka ilayka ihaatati nuuril mutalsam i e xaatati nuuri mu tasa nee damaa defoon dañ naan Moustapha eh, eh, kii rakkam nee defe na ne woon loolu la ñuy wax <laughs> waaye léegi tari loo nàkk ba tari na ko macha allah loolu am na solo xam nga boo ko jàngul romb jàkka ji mu koy wax rek yow lu ne ngay yaakaar ne lu ne ngay yaakaar ne loolu la loolu la kii loolu la ñuy wax waaye loolu lu am solo la su ko defee daal mbir mi mi ngi noonu mingi ngi noonu yal nañu yàlla yokkal tawfiq ci xale yi yéene biñ ci am yàlla na ko yàlla def ndax it moom yàlla rek moo ko mën a def xam nañ taxawaayu nday daara yi seen taxawaay ci daara ji wax dëgg yàlla ñu ngi koy lu def naa bu ma tuddee soxna joor Lo ci kër Njugo tudd soxna Awa Seck mii ci kër Sulay ñu mën a yóbbaale nday daara yëpp seen taxawaay wax dëgg yàlla xeebuñu ko rafetlu nañ ko bu baax a baax soxna Dior moom xanaa bu fi mbay loo nekkee lay jël vacance moom <laughs> fi mbay loo nekkee <laughs> waaye bu mbayloo demee moom kenn du ko man macha allah eh. sëñ mbayloo moom it dañ koy ñaanal moom yal nay am nawet rek waaw moom xaw moom daal nawet ku koy ñàkk mbayloo bu mu ca <laughs> ndax moom bu amee nawet daara ji am nawet macha allah yal na ko yàlla fay yiw ak sunu sunu nijaay Pape Mor Ngone Guèye hmm. ah moom itam yal mbiram di baax rek ak ñëpp waaw waaye ñoom wax dëgg yàlla daara ji ràññiku na ràññee na bu baax seen seen seen seen ndimbal su ko defé yal na yàlla fay len yiw yalla gëna gëna barkel motax suñu conférence bi dañ né bayu kaangi lañ ko dara jaale waye señ baylo maa ngi ko doon wax na yow mom dama xamné buñ tuddé bàyyi kaangi duñ la ci mëna baña tuddalé ndax am nga ci ñaari kaang waye wax dëgg yalla yow sa barkelu dafa jitu won ba du xel sax ñu di la ñu di la ñu di la ñu di la mbir mi du xel waye nak comme bàyyi kaangi la ñoo faaw ñu tudd ñu tudd ci sa Sohna ndax dugg ci koor gi soxna yi di barkelu ci lu ñuy lu ñuy ñagas ñagasu daara ji xam nga daara moom mënta ñàkk a ñagas ndax daara ñagas jur jàmbaar la wax soxna su nekk di ca def defena mom lam participer ay soxnaam participer nañ lam participer am solo lool de defe naa san xaw ma lan waaw san xaw lan mil wax dëgg yàlla loolu am na solo lool xam nga bu ñu wëlbatiku waatee ne net conference bi dañ koy dara jaale jur juri kaang yi ba noppi boolewaat ka ca bët du waaye xam na lu bopp attan waaye nag sant yàlla rek waaw bu ma sunu sunu yéene moom mooy bu ñu demee bay tuddati woy juru kaang yi kuy woy jur danga ci bokk. Mm-hmm. muñ ne dañ koy ndayale woy eh, eh, yaayi kaang yi kuy kuy yaay da ci bokk wala ñu dañ koy maamale maami kaang yi kuy maam danga ci bokk. ndax liñ fas yéene mooy ñëpp kaang liggéey la nag boo xam ne yombul waaye nekk ci rek ndax wolof yi nee nañ xëcc bu daggul dikk mbaam mu yendoo teeng waaw nit ñi nag léegi xàmmeetuñ daaw ak daaw jéeg nit ñi fi mu toll dañoo am problème mémoire non problème mémoire la nit ñi am xàmmeetuñ léegi daaw ak daaw jéeg gis nga lu xew daaw jeek bu ñu la koy neex dañ naan daaw daaw bi nga fi ñëwee te fekk man ñëwuma fi woon daaw. daaw jéeg ak daaw léegi nit ñi xàmmeetuñ ko waaw loolu yëpp ay jafe-jafe la yoo xam ne léegi yàlla moo li Serigne Cheikh naan yàlla wàccee wéradi léegi nit ñi wératuñ ba noppi jot amatul téléphone yi yàq nañ mémoire yëpp waaw surtout bu dee ci xale waaw parce que téléphone boo ko boo ko tiimee sa xel lépp day day day concentré wu ci ci bi xam nga man ngay waxtaan kii sa xel nekk ci gi mais téléphone boo xasee ba nekk ci sa xel dootul nekk ci nekkati ci leneen moo tax bokkul ak dara. ni muy jëlee xelu nit waaw dafay dem ba di naan xelu nit ki ba mën ngaa xereñ ci téléphone bi lool waaye nul ci wàllu xifzu mokkal man numéro téléphone numéro téléphone ah bind di ko bind damaa defoon ay foola ak i numéro téléphone kay buñ ko waxee nga dégg ko kay jëratul nga koy bind te tey jii man su ma ko bindee sax man ngaa dem ëllëg ma naan ki fi ñëwoon numéro téléphone am lan la tur wa tur waa ji ci boppam léegi dama koy fàtte pour ma génnee ko ci téléphone bi loolu lan moo ko indi téléphone ko indi bu njëkk ba li nga daan mokkal ci sa bopp léegi mënatoo koo mokkal ndax téléphone ndax téléphone dana jël sam xel ci benn côté beneen côté tam dana jël sa temps ndax boo xasee ba dugg TikTok TikTok boo xasee ba dugg fa te TikTok gaa yi TikTok yëpp yu kii yi rek la ñuy TikTok moom yu kii yi rek waaye nga dem fekk rek benn waaye mu toog rek di diglu alxuraan rek am 15 minutes yoo xam ne diglu alxuraan dong ko tax a toog. bariwul buñ déggee YouTube kadhalika waaw ci série la ñuy topp série yooyu nga xam man banaa ko bu yàgg man ndax ca wiiri wiiri laa ko bàyyi woon wiiri wiiri boo xam ne du dem ndaari mukk ca laa bàyyi ca laa ca nopp pare woon man waaye ñuy wax ñu dem ba yàgg nit ñi dugal ma ci naan ma waaw kii masala bi laaj léegi sëy ba tas naam tasul dugal benn masala fiqhiya ma topp ca naan ñu nekk ci di werante ca masalam fii lay mujj bu ko kii jëlee du demee nii ne loolu charia lii la ba ba faf seetaan série ba nag ba première saison ba jeex mujjul fenn demul ndaare ma faf ma faf jaaree fi mu toll yi ci des yëpp mën nañ ma koy nettali waaye nit ñi duñ ci doyal sunu waa kër dama leen koy wax buñ naan diw kii ko wax dañ koy jàpp da koy de da koy kii moom ujjuwoo takk na ko ma ne leen xool dañ leen di nax yooyu yëpp ñoom ñoo ko waxante fële ba juboo ci dem ñu filmer leen ñu wax ko ñu teg ko lu dara dara amu ci ay waaja a na kaak reyu ko du dëgg waaye dana dem ba loolu dana jël sa temps nga gëm ne waa rey nañ ko waa ku bon la kii mooy ku baax ki kii moo takk kii te kenn takkul kenn kenn reyul kenn kenn baaxu ci kenn bonu ci su ko defee yooyu yëpp dafa mat a bàyyi xel yi nga xam ne mooy fàbbi nit dafa mat a bàyyi xel yal nañu yàlla taxawu defal ñu sutura bu baax ñu ngi jégalu bu baax a baax a baax ci xaw a guddal gi yal na yàlla def tawfiq kontaan nañ bu baax a baax wax dëgg yàlla ci Serigne Moustapha yal nañ ko kontaane ci yeneen ndongo yi nga xam ne wàcc nañ ak yeneen ndongo yi nga xam ne ñi ngi waaj a wàcc ak yeneen ndongo yi door a dal sax yal na ko yàlla def ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaw nañoo guddal lool ci kaddu gi waaye guddal gi yëpp guddal lu bég la rek xam ne fii ñu ñëw yàgg nañ fe ñëw booba daara ji taxawagul te itam yàgg nañ leen a miin booba daara ji taxawagul loolu yëpp di rafet yal na wéy di rafet ba faw ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee ñu indi Maxtaar Lo moom awaloo indi itam Baye Habib moom soxna soxna Xadi ah indi itam uh, borom caabi ji <laughs> borom caabi ji indi Ibrahim borom caabi ji moom itam ñu ngi gàttal kàddu yi foofu xam naa Serigne Cheikh bu amee lu mu ciy wax wala keneen ko am lu mu yokk rek mu yokk ko ci yal nañu yàlla defal ndamu biir ak ndamu bit ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. aouzu billahi mina shaytaani wasalaatu wasalaam ala asrafil xalq sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam mbokk fi ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen balaq di baal di ñaan yàlla itam mu boole ñu jéggal di ñaan yàlla itam weeru kooru màgg wi ñu nekk lépp luñ si jaamu rek yàlla nangul ñu ko te fulal ñu ko incha allah xam na mbokk mi jiit sànq daf ko wax ne weer wi nga xamante si la yàlla wàccee alquran tombeek itam suñu dom dañ ko mëna tuddé tudde tamit def yi tari li nga xam si mooy tudde alquran kon yakarna lu mag lay doon té tamit dañ koy ñaanal yalla mu déma dem bañ koy dégg ci yenen inshallah allah bu loolu jalé itam xayna lé arab ñoy wax né man allamaka xarfan fa huwa mawlak kon yakarna ñi nga xam ñoko ko def ci mom xam-xam rawatina li nga tuddé li ñuy tuddé alquran ak ni mu toll ñu def ko ci dënnu xalé bi yakarna kenn amu seen fay kon yàlla mi am fa yàlla na leen yàlla fay ñoom ñëpp incha allah te itam oustaz tamit daf ko wax ci ñi nga xam ne mooy ñaari waay juróom ndax ku am sa doom jàngaloo ko yaroo ko yaa ko rey te daf ko wax sànq ci wàllu li nga xam si mooy xale bi nga xam si dafay nekk ku ñu suul te bu fekkee dafa nekk ku ñu suul nekkul ci wàllu jëmm ji lañ jël suul ko mais dañ koo suul ci côté bépp ba du yeewu ndax ki nga xam dafay topp way juróom wala muy topp mbedd mi rek bu yàggee mbedd moom mooy ne kilifaam kon ki nga xamante ne waaye juróom dafa am xolub buñ jël ko yóbbu ko ci daara ba am nekk ci dënam ëllëg dina am lu ko jariñ kon ñu ngi doolee sant yàlla bu baax a baax xëy na yaay bi nag moom ma wax ñu jël ay kàddu santal ko ji nga xamante ne ñoo ko doon yoroon ci daara ji parce que sa doom ki la ko yoroon rek waxuma la mu yoral mu jàngal la ko waaye mu yoroon la ko rek mënoo ko fay nee na mi ngi leen sant ci loolu di ci gërëm ndax ñaar olof yi lañ koy wax ne bés bu amee rek da ngay gis kenn ku nek di jambat moy jur gi wëtti wuñ ak xalé jangi wuñ bis bu Nakalan rek da ngay gis wa jur yi commencé jambat ndax lan sonal gi ñeen sonal ci kër gi kon ki nga xamanteni si yes dara ja mu sonal ko ci dara ja mu wagne ko di am lu mu defaat ci moom kenn mënu ko fay kon yalla na yalla fay leen yiw nee dal contane na fa contane yam amul lu mu leen fayé luddul dul ñaan leen bàyyi leen yàlla ndax neena xolam sedd na te fay delu ci la ñaan nga Serigne Moustapha netali won rek mu ne xol bu sedd doyna ñaan mais xol bu tang tamit doyna ñaan kon xolam sedd na ci yeen kon yalla na yalla seral seen xol yeen tam te fay leen yiw ci barke alquran ni mu tollu ci barke yaronte bi sallallahu alaihi wasallam barke weeru koru mag wi xeyna lay wax ci moom danaka jor ñukay guddal parce que wax ji moom dafay gën a jaxasoo rek te ñu jitu wax nañ lepp yalla na yalla fay ñepp yu inshallah ñu jéggu ci kàddu bu fekkee mat na tamit ñu xamni ci mbaxu yalla ak euh, magayam bu fekke manké tamit ci ñun ñi nga xam ñun lañu yonni la ak tamit xawa ragal tuti wax ci nit rek motax ñi ñu ngi ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah wa rahmatullahi taala wa barakatuh maa ngi nuyu mboolem jullit bi teew fii tey jii ndax tey kat lii ku ne xam na ne ku ne xam na ne lii day man moom moo ma dàqal sa sa doom jafal nañ ko ministère wax dëgg yàlla sama xol bi dafa sedd guy te xol yëpp sedd nañ ci dem maamam dafa demoon Louga waaye daf ne woon man danaa dem teew fa nun nag xalifa moom wax dëgg yàlla amuñu payam yàlla mi am fay yàlla nañu ko yàlla fayal rek alxuraan képp ko def sa dund doom desalatu ko dara desalatoo ko dara yàlla na yàlla fay ko yàlla may ko mu dund xale ba seeni doom ñu ànd muy jàngal seeni doom ci daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kontaan nan sant nan waa kër gi ñëpp sant nañ wax dëgg yàlla koy wax moo fi nekkul ku mën a wax moo fi nekkul waaye ñëpp a kontaan ñëpp kontaan te lañ yendoo tey sant ñëpp di sant ñim àndal di sant waa kër di sant ñëpp ku ci jàpp rek ñëpp ñoo ngi lay sant di la gërëm ndax xam naa lii moom wax dëgg yàlla du lu yomb du lu yomb wax dëgg yàlla moo tax noo ngi leen di ñaanal yàlla rek képp koo xam ne yaa nga caat xale yi nga xam ne amaguñ ko yal na leen yàlla defal ñoom it ñu am ndam lii ci daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man de lii moo ma dàqal lépp wax dëgg yàlla moo ma dàqal alal moo ma dàqal lu rafet moo ma dàqal lépp daal yal na yàlla defal ñëpp jàmm te alxuraan moom ku am am nga lépp ku am ñëw dara. waaw waaw mo señu Gaye day wax ne buñ dé jàngi jàngi leen ndax néna na amé alquran am nga alal am nga alquran néna na buñ gin jëdee wuti al alal yow alquran néna bo na alquran amee alxuraan rek ñëkkatoo dara muy dëgg no ngi leen di ñaanal jamm yalla na yalla def seen yoon ngeen del si ay yoon yoon ci ji sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbokk yi fi dajé ñoo leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di len ziyaara bu baax di balu ak ñepp ci wéru mag wi ñu nekk di bal ñepp ak xamna di jaajeufal suñu oustaz yi ci seen téway bi ak li nga xamantene mom lañ fi indi tay muy lu am solo macha allah di ñaan yalla rek yalla na yaato yaatu ba yaayu daara yépp am ci baayu daara yépp am ci ndax li ñi wax ne xalé mom bu juddoo li la war ci mom moy nga yar ko nga jangal ko te jang ma nag alquran tax ñuy wax jang kon nak macha suñ dom ji bu dundé ba tari ba ñew tay tari sa ko ci dëkkam bi xalé yu ko gis yépp ñeenan ko ku gul ku nekk so tari comme ya yalla na fay ñi nga xamantene ne yor daara ji oustaz khalifa ak ñim ko sékkal amna solo ndax yegg na ne at yi yépp mo ngi koy def barki démb la def ci ndamu kër giri macha setan nan nañ ko donté le demuñu mais amna solo gis nan ko daaw jégg mu def ko fi ren mu dik defaat ko fi ak fenen ak fenen fum ko def yep yeug nañ ko macha allah yalla na daara ji yalla dundu ba nek ay daaray daara yàlla na dund ba xale bu ca jaar bu nek yalla defal la nga mokal di jaajeufal nak way juri tamit ndax lepp ñom la ndax su fekente ne am nga sa dom li la ci yalla sant nga def ko ci xëy leneen la ca dess lepp day yomb ndax boko jangale rek leneen li ci dess lepp yomb mais soko jangalul rek nak ya ko ray leneen lum dugg rek ya ko ca yobbu kon nak yàlla na barkel di ñaanal mbay mi nga xamantene moko sabab ak soxna Mariama ak wa kër gi yëpp maam jaga mi ci biir ak wa kër gi yëpp dal ñogi leen ci jaajeufal ndax lepp ñom la di jaajeufal maam yi tamit maam bintoog ñëpp rek kàddu mat na daanaka jël won ñun ñu ci jël di jaja timit oustaz yi nga xamantene ño fi tew dal ñogi leen di ñaanal bu baaxa baax yal na yàlla barkel a yalla yal na yàlla gën yaatal dara ji yal na defal ko leeru deun yal na motali xam-xamam ci yenen yi ci dess yep ci barke yonent bi ñoo jaajeufal ñep ay joge ci dekk bi yep dem ca daara ja yal na leen fi indi wat ñu tari kamil bi non lañ ko non lañ ko bëgg de inshallah allah ah, ko ci Baye Habib Lo ak eh, Mam Cheikh Tidiane Lo ak Ibrahima Lo defe naa fi des ak eh, Maktar Lo yal na yalla indi wat ñom ñep ñu tari kaama maam Cheikh waa moom mooy mooy maam Cheikh Tidiane loo waaw su ko defee loolu daal seenu sag la sunub sag la te danañ ci def lañ man nag ci kàttanu yàlla incha allah soxna Mare moom li ma ci bëggoon a dolli rek moom daf maa xawoon a ragal nag ay jamono ba yàgg mu mujj ma ñeme <laughs> soxna Mareem ak soxna Njóoba soxna Awa moom moo leen tane woon. waaye soxna Marème ak soxna Njóobaloo ak ay demfeen classe googu moom maam maam jëmb daan na wax ne daan wax ne Njóoba moom xaw ma kañ lay gis jant bi rek waaw ma indil leen woon am njàng moo xam ne est ce que dëkk yi ñi ngi nangu sax seen doom yi ñu di leen jàngale noonu njàng moo xam ne kër kër kër gu ma dugg gis gis xale yi jànguñu kër su lekkee foo dugg ñëpp dañuy fatu ji dem jàngi waaw waaye léegi léegi indépendance bi dafa dafa kii moom sa bopp gi dafa yaatu. dafa bari trop fa tabaarakallah yal na yàlla dolli sutura looloot wax dëgg yàlla looy sant yàlla nit ki boo koy jàngal ba ëllëg ngay jàngal doomam loolu lu jara sant yàlla te dara ñaawul ci diggante bi loolu jar naa jar naa sant yàlla xam naa ne man mii xawoon na maa soxor ba may jàngale te amaguma doom jàngalekat bu amagul doom day soxor xawoon na maa soxor waaye soxna Mare moom yaakaar naa fàttaliku ma fu ma ko dóoree de wala bariwul <laughs> waaye waaye waaye daan naa leen sonal ci école bi ak soxna Xarin Njaay mais moom itam moom itam mos na ci kaani gi <laughs> soxna Xadi Njaay mais mos na ci kaani gi moom itam waaye yooyu yëpp daal xam naa ne rafet na rek lépp lu neex a nettali rek lu neex a nettaliwaat rek rafet na lépp lu paase kenn dootu ko nettali rek mooy doy na waar waaye buñ ko mënee nettaliwaat di bég rek loolu mooy loolu mooy rafet na fa tabaarakallah kon nag dañuy jox Serigne Moustapha mu jàngal ñu xatmu bi comme jataayu alquran la ci weeru koor gi alquran wàccoon ah wax dëgg yàlla man de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 وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم إن اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي عقدي وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل سر اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة شبية ومرض غير موز ولا فادح اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الممات وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبت وثق الموازين وحقق إيماني وارفع درجتي ورخب صلاتي واغفر خطيئاتي واسألك العلا من الجنة اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عقبتنا في أمور كلها وأجرنا من حزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معشيتك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 Gam ko aar ngeen nendu cirah ya labur bima yàlla lerga bi moo ko arunga leer ga cirah ya labur ko aaru nga bilay ken bi tan ya barina jang ko mangiu asun yow ya. dara téere bi bawul dara jàngu ko xam dara mooy sunu saafara ñu nak moom ba kawsara qur'aan gi kem tan ya na